gisul kenn gisul dara lu jóge ci yàlla jëm si ci moom ba mu jaaxle woon waaw bi nga xamante ni dem na ba jaaxle dem na sax ba yéeg ci ko montagne nar xaru ndax dem na ba yéeféer yi di ko ñaawal di wax ne moom daal yàllaam ji def ko ba la ko daan feeñu daal ñëwatul waaw loolu demoon na ba yonent bi xatoon lool ci màkk ndax ki mu gën a sopp ki mu gën a bëgg kii léppam di yàlla moo yónneetul ci moom waxut ak moom mel ni ku jàpp njàmburam ci moom ba loolu taxoon na yonent bi sallallahu alayhi taxaw ci montagne bu gudd bëggoon a sànni yaramam daldi xaru dee foofu nag lay yónent la yàlla yebal sayidna jibril alayhi salaam ne ko demal nga wax yonent bi ne ko bañuma ko demal itam nga wax ko ne ko jëppiwuma ko man la soob rekk ma doxale noonu lu jiitu nga ko koy wax nag ne ko maa ngi koy giñ ci yoor yoor di ko giñ itam ci guddi bu dalee maa ngi giñ ci sama ñaari kéemtaan yooyu ne moom yeneen bi bañuma ko jéppiwuma ko jibril alayhi salaam daal di ñëw ne ko sa boroom nee na wadduha walleyli ida saja maa waddaaka rabbuka wa ma qala ñu ne saar boobu li tax mu wàcc sababu nuzul bi moo di loolu moo tax Sidi Xaaj Maalik Si wax na ko ci xilaasu dahab ne waqat aral waxya xaqan baada muftaratun baadu muftaratan miiman wa kaana arrida fi gaayati alwakami waqat aral waxya xaqan baadu muftaratun miiman wa kaana arrida fi gaayati alwakami yaclu aljibaala muridan ram ramya yi xusnan ila al ardi lawla ruuxu du raxami ñu ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa tiitoon na tiit mu rëy ndax bi mu gisaatee jibril ci meloo malakaam tiit na ba tax mu daw sàngoo ji benn mbàjj mu rëy ngir rekk yaramu sayidna jibril wu raglu ak melokaanam wu raglu wa ndax sayidna jibril léeg-léeg daan na feeñu yonent bi sallallahu alayhi wa ci melokaan wi ko yàlla bindee léeg-léeg daan na ko feeñu ci min waraay xijaab léeg-léeg daan na ko feeñu ci jëmmu nit bu ñu xam léeg-léeg itam daan na ko feeñu ci melokaanu jóolóoli maanaam jóolóoli fas wayang wayangu fas yooyu daan na ko feeñu wax yu bi daan na ko dikk ci e, façon boobule kon ñu gis ne yonent bi sallallahu bi nga xamante ni daw na sàngoo ji mbàjj ma seydina jibril ñëw na ne ko yaa ayyuhal mudaththir qum fa andir wa rabbaka fa kabbir wa thiyaabaka fa tahhir wa rujza fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir foofu nag la na jibril ñëwee fekk yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi sàngu mu ne ko yow aji sàngu ji jógal nga waare jógal sa borom nee na message bi mu la jox jógal nga tas ko loolu moo doon sabab bi tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg di dugg këroo kër ni mu xam ñépp mu wax leen ne leen yonent laa yàlla mu yónni waxtaan ak ñoom ñii mu convaincre leen ñii ci des bañ moo tax ñu ne qaama muhammadun sallallahu alayhi bima amarahu llahu wa daa licibaadatihi sirran xadiran min mufaajaati annaasi bi amrin garib wa kaana awalu man aamana bihi zawjuhu xadijatu bintu xuwaylid wa ali bnu abi taalib wa abdullah bnu abi quxaafa alladi yukanna bi abi bakr wa zeyd bnu xaarisa ñu ne yonent bi sallallahu jóg na di woote wante dañ ne mbay ci sa yowu tànk mu njëkke biir kërëb waxtaan ak soxnaam di xadija mu gëm mu jóge fa waxtaan ak rakkam ji mu yar nekkal ci kër gi di ali ibnu mu gëm mu jóge fa waxtaan ak xaritam bi muy àndal di Seydina Abu Bakr mu daal di gëm ñu ne na Abu Bakr mu ngi tuddoon Abdullah ibnu Abi Quhafa wante ñu ngi koy dàkkantalee Abi Bakr Abi Bakr bii nag moo dem ba gën siiw turam wu njëkk mu jóge fa am benn jaamam bu nekkoon ci kër gi di Zeyd nu Xaarisa mu mujjoon ko doomoo mu waxtaan ak moom moom itam mu gëm kon ñooñu ñooy ñi njëkk a dugg ci lislaam mu di xadijatu bintu xuwaylit ak ali ibnu abi taalib ak abdullah ibnu abi quxaafa ñu gën ko miin ci abi bakr ak zeyd ibnu xaarisa kama qad ajaaba daawat al islaami baadi al amr qillatun min al ashraafi wal mawaali ka usmaan ibni affaan wa zubayr bnu awaam wa abdurahmaan ibnu awf wa abdullah ibnu mas'ud wa saadu bnu abi waqaas wa talxatu bnu ubaydillah wa abi darrin alxafaari wa suhayb ruumi wa gayruhum ñu ne itam gannaaw ñooñu am na ñeneen ñu dugg ci lislaam waaw ñu nekk ñu néew ci boroomi daraja ak i jaam ku demee ni Ousmane ibnu Affan ak ku demee ni Zubayr ibnu Awaam ak ku demee ni Abdurahman ibnu Awf ak ku demee ni kii Abdullah ibnu Mas'ud ak Saad ibnu Abi Waqaas ak Talxatu ibnu Ubaydillah ak Abi Dar al-Ghafaari ak Suhayb ar-Rumi ñii kat ñoom mujj nañu dugg ci lislaam gannaaw eh, situna Xadija ak sidna ali ak abu bakr ak zeyd ibnu xaritha ñu ne daxala haulaai fi lislaam wa fi dalika tadxiyatun minhum wa ayu tadxiya وقد روي أن أبا جهل وهو من رؤساء قريش كان إذا سمع بالرجل قد أسلم وله شرف أنبه وأخزاه ñu ne ñii seen dugg ci lislaam maanaam dugg la boo xamante ni dugg bu ànd ak risque la bi ñuy dugg ci lislaam daanaka boobu seen bakkan mu ngi ci xottu nen ndax itam boobu am na ñu yàlla jox dooley biir ak dooley biti ñu doon kilifa ya nga xam ne ñoo yilif màkk ay yéeféer yu bon lañu woon ñi gënoon noonu lislaam gënoon a bañ jullit ñi te ka nekk ci seen bopp di abu jëhal moo gënoona soxor ci kilifay Quraysh yi moom bu masaana dégg ne diw tuub na su fekkee boroom daraja la daf lay yëj di la xas naan la yaa ñàkk fayda diine ji nga fekkoon say bàyyi ki say say say say maam nga bàyyi ko di topp koo xamante ni mu ngi dofloo suñu xel yi jàppee ñu ay dof te moom wérul nga topp xale bu ndaw fu ne mu jëme la fa dégg feek yaa ngi ànd ak dégg nga maam Muhammad du ñu la mën a considérer doo bokk yitam ci ñu ñuy woo ci suñuy mbooloo kon ñi gëmoon yonent bi nekkoon boroomi daraja dañuy dem ba beddi leen dootuñu bokkati ci dara ñu ber leen ci lépp ñu ni su fekkee ki gëm commerçant la daneen fexe ba yàq commerce am daneen fexe itam ba yàq alalam su fekkente ni ki gëm itam yàlla dafa dogal amul doole ndax bokkul ci askan wu foor wala amul alal su boobaa nag danañ koy fexe danañu koy benn buñ ko mënta rey itam danañ ko teg ay xeeti mbugal yu nga xam ne génn ca dugg génn ci lislaam rek lay bëgg ndax mbugal yu metti te jiite woon mbir yooyu nag moo di Abu Jahl mu ne moo tax nag ñiy wax ne lislaam eh, li ko yëkkati moo di jaasi ñooñu dañoo waxe rekk seen bakkan dañoo waxe itam ñàkk xam-xam ak réer ak itam e, noonu gu ñu noonu lislaam ndax su fekkoonte ni lislaam jaasee ko yëkkati kon yonent bi du commencé fii kon day bàyyi ba am doole soog a woote waaye yonent bi dafa raam ñu koy sonal di sonal njabootam ñi ñu leen di rey ñii ñu leen di tëj ñii ñu sonal leen ba nga xamante ni su seen pas-pas dëgërul woon doon nañu génn ci lislaam kon su fekkoonte ni lislaam jaasee ko yëkkati kon coono bii jullit ñi duñ ko daj waaye jullit ñee njëkk a sonn nag moo tax ñu ne yonent bi kay mësul dañ di nekk ku ñu tooñ moom ak ña ko topp ñen ñoo leen daan tooñ giir Quraysh mooy ñi nga xamante ni ñoo bokk ak moom ñu ne yonent bi sallallahu alayhi yàlla digal na ko pour mu biral woote gi ndax woote gi daf ko daan def rekk ci suuf di seet ñi ko gën a jege muy waxtaan ak ñoom waaye ba mu toogee ba mu am ñetti at la ko yàlla wax ne ko fasda bi ma tumar wa arid an il léegi nag woote gi waxatuma nga koy yelu di ko wax ci suuf wante biralal sak woote te itam na nga dub yéeféer yi nga xamante ni ñu ngi may bokkaale bis bu ne te itam sa noon lanu te noonu lislaam bi bu leen faale ci dara jugal nga doxal say mbir danaa jàppale ñoo moo tax ñu ne imtathala nabiyu amra rabbihi fa saada ila safa summa hatafa ya sabaha fa qaalu man hada alladi yahtif qaalu muhammad fa qaala ya bani fulaan ya bani abdulmutalib ya bani abdi manaaf fajtamacuu ilayh fa qaala araaytukum lawix law axbartukum anna xaylan taxruju bi safxi hada aljabal akuntum musaddiqiya qaalu maa jarabna calayka kadiba qaala fa inni nadirun lakum bayna yaday cadaabin shadid fa qaala abu lahab tabban lak maa jamactanaa illa li haada summa qaama fa nadala qawluhu taala tabbat yada abi lahabin wa tabba ila axiri suura ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw na temm pour fas yéene def li ko yàlla digal te moo di biral woote gi ci kanamu ay nit ñu bon ci kanamu ay noon yu soxor yu am doole ci kanamu ay ceddo yu nga xam ni musuñoo xam lu baax yeneent bi xëy bëgg a taxaw jàngal leen lu baax ñu noonu ko ba noonu googu fas yéene nañ cee jël bakkanam jël ci bàkkanu ku ànd ak moom wante yonent bi gëm na ne yàlla dana ko jàppale gëm na ne lu mu metti metti itam yàllaay rey yàllaay dundal lu soob yàlla rekk ay am mu daldi jóg ak pas-pas bu wér daldi yéeg ci montagne yu Safa Safa montagne la bu nga xam ne ñépp xam nañu ko ndax ku dem Makka da daw Safa ak Marwa montagne boobu ñuy wax Safa nag ci la yonent bi sallallahu yéeg bi mu yéegee ci kaw montagne bi daa woote ca kaw daldi woo nit ñépp nit ñi daa di wax ne ban kàddooy woote ndax dégg nañu baat bi kowe na waaye gisuñu jëmm ji ñu ko gis daa di wax ne ne daa di wax ne Muhammad mooy woote yonent bi mu nga naan yéen fami sàngam yéen fami Abdul Muttalib yéen fami Abdu Manaaf fami bu ne mu tudd la ci màkk ne leen ñëw leen ba famille yépp daje si ñëw fekk si ko ci kaw montagne bi fi mu taxaw yonent bi sallallahu alayhi ne leen ndax yéen su ma leen waxoon ne leen dana am ay fas yuy génnee ca montagne bële ñëw wut si leen ndax dangeen ngeen ma gëm ci wax boobu ma wax ñu ne ko ñu ne ko waaw waaw ndax kat ma jarab naa alayka kadiba ñun kat mos suñu laa xame ay fen mësuñu laa xamee caaxaan wóor nga ba ñu tuddee la Lamine muy sa dàkkantal ne ko kon nag boo ñu ko waxee danañ ko gëm yeneent bi ne leen maa ngi leen di yëgal ne yàlla ma yónni pour ma xupp leen ci mbugal mu tar pour ngeen daw ko bañ caa tàbbi ñu ne ko ban mbugal mu ne ëllëg yàlla nee na képp ku ko bokkaaleel boole ko keneen di ko jaamu dana lu dugal safara bokkaale boobu laa leen di dawal te kat seen xërëm yi bari na fii ci kaaba gi ndax lu tolloog ñetti téeméeri xërëm mu ngi fi ci xërëm yooyu duñu yàlla ay doj lañu ak i bant yéen leen gën bi mu commencé di waar nit ñi ci la baayam boobu ñuy wax abu lahab ci la jóg ne ko tabban lak ne ko yàlla nga toskare yaa xamadi noonu la doge yonent bi sallallahu ci waxtaanam ne ko yaa xamadi yaa alkute ñàkk teggin ndax lii moo tax nga ñuy woo di ñu déranger te ñuy say kilif foofu nag la yàlla mere moom itam daal di tontul sayidna muhammad sallallahu alayhi wasallam daal di wax jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko abu lahab moo mu jóg di ko xas ci mbooloo mi gisatuma daraam alkuna ba faw alkuna te lépp lu moom alkuna moo tax bi jibril ñëwee wax ko yonent bi yonent bi daal di biral ca mbooloo ma ne tabbat yada abi lahabin wa tabb yàlla nee na tabbat alkuna yada abi lahabin maanaa ñaari yi abi lahab maanaa waxin la abu lahab ci boppam alkuna waaw lépp lu mu am itam alkuna ba ca soxnaam sa sax alkuna ndax soxna sa da ko doon jàppale moo tax ñu ne e, nit boo ko day jàppale danga koy jàppale ci lu baax waaye doo ko jàppale ci lu bon lu bëgg-bëgg nit ki waaw bu bañee nit bu mu tax nga bañ ko su noonoo nit bu mu tax nga noonu ko yow daal toujours rek na nga ànd ak sa xel seet ba xam ndax sa waa ji li mu bañ ndax jaadu na wala jaaduwul li mu noonu ndax jaadu na wala jaaduwul waaye am na ñoo xam ne toppook dof la ñuy def lu ne seen bakkan lañ ciy jiital waaw su ko defee danga am sa waay ba kum bëgg nga bëgg ko kum bañ nga bañ ko te du noonu waaw parce que nit moom eh, doomu njuumte la waaw ni muy defe lu baax noonu lay juumee sax ci di gën a bari wante umu jamil mii di soxna abu lahab moom itam ba yàlla xasee jëkkëram ji dafa mer jàppale jëkkër ji ba mu ko jàppale nag ca la ko yàlla boole ca xas wa ne wamraatuhu xamalatul xatab fi jiidiha xablum min masad ñu ne yonent bi sallallahu yàlla wax na ko ne ko wa andir achirataka al aqrabin maanaa na nga waar sa giir gi la gën a jege waxfid janaxaka li man ittabaaka min al muminin woote nga nag ñépp danañ la wuy si wante nag bu ñépp wuysee bu mu tax nga rëy nit nga rek comme ñépp wàcceel sa bopp del jaxasoog nit ñi di wax ak ñoom di dem leen ñoom di fekk ñoom ci ni ma ko bëggeek ni ma ko digle wante gis ne ni Abu Lahab mi wax nanu ne e, bisu altine maanaam guddi altine gu ne yàlla dana teggi mbugal ci kawam waaw lu tax ñu ne ndax bi nga xamante ni yàlla dogal na Seydina Muhammad juddu bi mu juddoo dañu yebal benn ndaw ne ko demal nga wax Abu Lahab ne ko doomu mbokkam bi de maanaam jabaru mbokkam bi mucc na te moo di Amina te boobu fekk na Abdallah mi bokk ak abu lahab baay moom faatu na ñu ne jaam bi nga xamante ni moom la ñu yebaloon pour mu ñëw wax abu lahab ne ko amina mucc na jaam boobu jaamu abu lahab la woon bi mu ñëwee fekk abu lahab ci kaaba gi mu ne ko amina mucc na sa doomu frère ba de sa jabaru frère ba de am na am na doom wax nañu ne kontaan na foofu kontaante gu nga xam ne daf ne jaam bi goreel naa la yow mi ma indil xabaar bu neex bii wax nañu ne lu baax loolu mu defoon nag yàlla fàttewu ko waaw cofeel googu mu amoon ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax wax nañu ne guddi altine gu ne bisu altine bu ne danañu teggi mbugal mi ci kawam waaw su altine jeexee rek ñu commencé kon danañ ko mbugal alxames ajjuma samdi dimanche altine ñu teggi demaat talaata ba àllarba moom daal bu altine ñëwee rek ñu teggi segam nag abu lahab mi nga xamante ni moo di noon ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu ko ba ni mu faatoo yàlla xas ko ci alquran goreel gu mu goreel jaamam ci cofeel gu mu am ci judduk yonent bi tax yàlla teggil ko mbugal mbugalu bisu altine waaw kon nag ñi nga xam ni gëm nañu yonent bi sallallahu alayhi gëm gu wér sopp ko cofeel gu wér tànn bisam bu réy bii di màggal bis bi di ko ci tagg di ci wax ay jikkoom waaw kontante gi ñooñu am nag xanaa ñooñu seen àjjana yaakaarlu na waaw su yàlla amee yërmande ci abu lahab mu di yéeféer ba teggil ko mbugalu bisu altine waaw ñi di jullit nag sopp yonent bi di ko gàmmul moo tax ñu ne kon gàmm bu dee bidaa la itam bidaa bu rafet la moo tax yàlla xas na abu lahab gannaaw ba mu xasee yonent bi sallallahu alayhi wa moom abu lahab yàlla digal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaral say giir sa mbokk yi la jege waar leen bala nga génn ca pénc ma yonent bi dajale na giiram mu ne leen maa ngi leen di giñal ne nit ku baax as du nangu mukk di nax ay mbokkam te yéen yéenay samay mbokk su ma doon fen ci nit ñépp danaa rusa fen ci seen biir su ma doon tromper nit ñépp rus naa leen a tromper ndax yéenay samay mbokk wallahi alladi laa ilaha illa huwa inni la rasulun na rasulullahi ilaykum xaasa wa ila nnaasi kaafa mu ne leen giñ naa ci yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu dul moom giñ naa ni man yonent bi yonent yàlla laa ci yéen samay mbokk wante itam yonent yàlla laa ci mbooleem nit ñi wallahi la tamuutunna kama tanaamun giñ naa ci yàlla ni ni ngeen di nelawe noonu ngeen di deeyee wala tubaathunna kama tastayqiduun te itam danañu leen dékkil ëllëg comme ni ngeen di yeewoo jóge ci seeni nelaw wala bun kama taamaluun te itam lépp lu ngeen jëf ci àdduna yàlla dana ko réglé du ci bàyyi dara wala tujzawna bil ixsaani ixsaana te giñ naa ni ëllëg itam ku def lu rafet yàlla dana la ko fay du ca wàññi dara wa bis suu i suu a ku def lu ñaaw itam yàlla dana la ko delloo wa innaha la jannatun abadan benn mu nekk àjjana ba faw aw la naarun abadan wala mu nekk safara ba faw foofu nag wax na nu ne mbokkam yooyu ak giiram googu mu doon waar ñoom de bi yonent bi sallallahu alayhi sallam daanale kàddoom waxtaan nañ ci seen biir waxtaan wu nooy wu wuuteeg waxtaanu abu lahab ndax abu lahab daf ko toroxal xas ko ñu ne wante giir quraysh dañu ñu di fayoonteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax kaana al arab qabla al islaam yacbuduuna al asnaama fi l masjid al xaraam wa hiya cibaaratun can axjaarin laa tadur wala tanfac walakinaha maca dalik kaanat asaasu alxayaati inda quraysh zaimatu alarab is kaanat alqaraabinu tuqaddamu li hadihi alasnaam wa fi hadihi wa fi hada maslaxatun iqtisaadiya wa manfaa adabiya li quraysh fa kaanat qurayshu hiya allati taxmi addaara allati fiha hadihi alasnaam فالقضاء على هذا الدين إنما هو قضاء على هذه المنافع وهذه الزعامة ñu ne arab yi lu jiitu lislaam di ñëw daan nañu jaamu xërëm ci masjidul xaram xërëm yi ñu doon jaamu nag ay doj lañu yu nga xam ne mënuñoo lor mënuñoo jëriñ wante nag daanaka xërëm yooyu ñu daan jaamu moo yoroon seen dund ndax ci la Quraysh daan dund te itam daan nañu faray ay gàtt di ko saraxe waaw xërëm yooyu nekk gañ fa nekk amoon na intérêt bu rëy ci giir Quraysh taxoon na itam ñu wekk leen ci biir xijaaz ak biti xijaas fu ñu dem rekk ñu weg leen ndax seen barab ba barabu jaamu la barab bu sell la te kat wax na ni giir Quraysh moo yore woon xërëm yooyu daan ko aar kon nag ñu ne képp ku nga xam ne jóg na pour ñàkkal fayda xërëm yooyu dindi ko fa nee na bëgg nga dindi ay intérêt yu rëy yu nga xam ne giir Quraysh ñoo ko moomoon bëgg nga dindi itam kilifteef gu rëy goo xamante ni dégg nga ngir yi ñoo ko jago woon léegi kilifteef googu ak intérêt yu rëy yooyu taxoon na waa Quraysh noonu na Muhammad ndax ñoom gisuñu woon dëgg gi waaye seen intérêt yi bopp la ñu gisoon looloo taxoon ñun noonu yonent bi sallallahu alayhi waaw ndax ñoom gis nañu ni bu ñu jaamutul xërëm dañuy torox ba faw moo taxoon yittey yonent bi sallallahu alayhi nekkoon ci tasaari diine ju bees ji wante nag yonent bi sallallahu alayhi def na ko ci coono ndax lépp lu nga xamante ni dëppoo wut ak tawxiid lépp lu nga xam ni ak bokkale la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko xas na ko na xelu nit ñi pour ñu yewwu ci ne yàlla rekk am lu dul yàlla neen la te lii ñuy sëgg di ko jaamu itam ay neeni kese la yonent bi sallallahu alayhi dugg si na bis ci masjidul xaraam mu fekk kilifay Quraysh yooyu ñu ngi sujootal xërëm yi mu tere leen ko ne leen lii ngeen di defkat jaaduwul ndax kenn du sujootal dojo ki bant wante kilifa yooyu mu fekk ci masjidul xaraam ñuy sujootal xërëm yooyu dañu ko tontu ne ko ñun dema nacbuduhum illa li yuqarribuuna ila allahi zulfa ñun kat jaamuwuñu xërëm yi ndax xam na nañu ne amuñu benn njariñ amuñu benn lor wante itam dañu bëgg rekk ñoom ñu nekk wasiila suñu diggante ak suñu boroom dañ cee bëgg a jaare pour mën a àgg ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi leeralal ne leen inna dalika huwa shirku alladi laa yaqbaluhu llahu minhum loolu ngeen def nag moo di ak bokkaale waaw di wut yàlla di ko jaare ci doj walla nga koy jaare ci bant loolu ak bokkaale la du tax mu ngeen jege yàlla daf leen di soril yàlla wante giir Quraysh dañu ñu di wuuteeg yonent bi sallallahu di ko ree di ko yëcc loolu alquran nettali na ko wa ajibu an jaahum mundirun minhum wa qaala alkaafiruuna haada saaxirun kadaab ajacala al aalihata ilaahan waaxidan inna haada la sheyun ujaab waaw yàlla nettali na ko wax ni ñoom yéeféer yi de yéemu nanu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee di leen waar waaw ñoom yéemu nanu ci waaraate yooyu di jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba ñu taxaw di wax yonent bi naan naan haada saaxirun kazaab kii daal jibarkat bu mën a fenn la moom de fekk na ay yàlla yu bari mu remplacé ko benn yàlla li yonent bi ne yàlla kenn la daf leen jaaxal ndax ñoom miinuñu woon ne yàlla kenn la ñoom dañu jàpp ne kay kenn ku ci nekk yaay wut sa yàllay bopp waaw moo tax soo demee ca Kaaba ga da ngay gis yàlla ji ñu ne la mooy yàllay ngelaw li yàlla ji ñu ne la mooy yàllay taw bi